acca chers amis internet euh, de Wassare TV de Wassare Lamb gis ngeen ki nga xamante ni mooy Zarko dafa ñëw moom tamit jaale si. mel ne tis boobu nag bi mu amee Grand Yoff la amee mais fi mu am ci Grand Yoff dafa mel ni soriwul sa kër parce que bu ma taxawee fii damay seet sa kër sànq. mu mel ni imam bi nga xam ne moom mooy ñàkk ba kanam di Cheikh Ahmed Tidiane daal yaakaar noonu la tudd. barki dem ñu fekk wala dem ci bassin bi yàlla jël ba kenn tey nga ñëw fi jaale ci njaboot gi bu ñu la laajoon tey Zarko imam bi ndax xam nga ko ak imam bi moo doon kan loo ñuy wax waaw xanaa bu ñu masoo képp koo xamante ni doomam nga ak mbokkam xam hmm. nga di leen di ko ñaanal fi mu jëm yàlla na suuf sedd ci kawam hmm. ak ñëpp ñu mu fa fekk eh, imam bi hmm. eh, koñ bi foowee naa fi mais miinante wuñu mën ak moom jël interview bu baax mais ki doon wax barki démb ci moom. Ndeye Sow. kooku sama xarit la sama jigéen la. comprendre nga te imam bi aussi am na ay doom yoo xamante ni sama xarit la xamante nañu bu may bëree tamit ay doomam dañ fiy ñëw wax dëgg yàlla dañuy ñëw sama kër dañ may seet si dañ may ñaanal. mu nekk loo xamante nag lu ñu metti la. ñun lu ñu mettali ñun population de Grand Yoff parce que euh, ñun bëgg nañ beneen Grand boo xamante ni dañ day am sécurité. Grand Yoff bi nga xamante ni moom la ñuy woote. képp kuy doomu Grand nekk ci jàmm. boo mënee euh, dem foo bëgg a dem ci Grand dem fa. xam nga di di wax rek euh, encore une fois. état bi ci boppam. nañu gëstuwaat sécurité Sénégal. parce que Sénégal du Grand kese Sénégal moo manqué sécurité. tellement Sénégal moo moo moo rëbëjoo. looloo tax xam nga eh, dañ ci dañ leen ciy woowaat rek pour ñu gën a gën a sécuriser ñu suñu dëkk xam nga di wax aussi tamit population bi nañ nañ taxaw ci sécurité Sénégal sécurité Grand yef pour ñu eh, ñëpp ñëpp ñu fi ñu fi dëkk mën a nekk ci jàmm di di jaal na xam képp koo xamante ni eh, mbokk paa bi nga wala ngay doomu paa bi wala ngay jarbaatam loo mun ti doon rek ñu ngi bokk ak yow naqar bi quoi di leen masaw bu baax a baax a baax ak agression ak yu mel ni ki noonu bay ay jël bakkan ak yooyu di ci am lan moo tax Grand Yoff bu ñu ko tuddee rek xel yi dem ci insécurité ak lu mel ni ki noonu. non du loolu du grave du grave kese parce que boo xoolee euh, mun nañ ne lii ndogalu yàlla la mbiru yàlla moom nit munu ci dara xam nga fi yàlla tuddee ni yow foofu ngay jeexalee foofu ngay jeexalee parce que kenn kenn kenn mënul juger kenn mënul wax ni lii agression la wala dara. parce que euh, ki nga xamante ni mooy euh, ki ki làqu euh, fekkuñ ci moom léppam mu ngeeg moom mu ngeeg téléphone am mi ngeeg jaaro mi ngeeg ay montaram kenn jàmmu ko kenn kenn defu ko dara comprendre nga mag la aussi dem na ba toll benn moment boo xamante ni xel mi nekkatul ak moom kenn xamul ndax dafa dem ba foofu daanu kenn xamul lépp lu ciy waaye di wax rek na nekk loo maîtriser parce que dañoo xëy rek fekk ko fa. comprendre nga. mu amaan mun na nekk lu ne nag. kenn newul dara amu ci. mais lépp lu ciy waaye di wax rek na nekk lu la wóor quoi. na nekk lu la wóor. Mhm. tey boo amoon looy adressé jeune Sénégal rawatina jeune Grand Yoff tey ban adresse lay doon ban ban message nga leen di lancé par rapport ak comme ni nga ko waxee léegi insécurité bi jàppal bàyyi léegi yu mel ni ki noonu ak jamono ji réew mi ni mu lëmb yow su nag si côté sax politique bi. waa mais li leen wax rek mooy nañu fexe ba sécuriser waat suñu dëkk. suñu dëkk moom bu ñu ko waxee doo doo ne Grand Yoff doo ne Parcelles doo ne Pikine Sénégal ngay wax Sénégal moo ñàkk sécurité du Grand Yoff wala feneen non Sénégal parce que lii nii détails yi nii ça fait des années kenn dégg ko Sénégal euh, Grand Yoff donc lii mun nañ leen ndogal la rek euh, loolu na xam jeunesse bi yëpp laa koy wax que ni ñu ñu jéem a changé waat suñu méthode jéem a uti liggéey jéem a xëy jéem a jëriñ dara pour suba ñu xam ni leen àddina bi wërngal nga képp. agression sàcc jël alalu jàmbur kenn du ko teralee yaay yaay ñu ngi koy teralee ci ñaq ngay ñaq jëriñu doo lay bàyyi faal Cheikh ndiggal loolu la ñuy teralee yaay. loolu la ñuy mhm. tey famille bi lool leen di loo leen di wax famille bi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk ki nga xam ne mooy imam. waaw mais dañ leen di masaw rek dañ leen di masaw parce que loolu moo fi des amul leneen lu ñu mën a def dañ leen di masaw xam nga gunge leen ba ñu denc ba ñu denc ba ñu denc koor bi après ñu ñaanal ko après ku ci nekk delluwaat say activité mais Zarko même bu budul loolu sax tamit jil defe naa ne léegi Sénégal bëri na fuy déggee agression même pas Grand Yoff euh, gox boo dem. am na ñoo xamante ne ay ay ay defkat lañ. mais ñenn ñi ci gox bi dañ leen di xam. Mm-hmm. te dañ leen di nëpp nëppal koo wax comme tey Zarko li mu wax ci Grand Yoff loolu la war a wax mooy Grand Yoff amul defkat Grand Yoff ay nit yu baax ñoo fi dëkk ay nit yu noble ñoo fi dëkk mais loo gis am na ci ñoo xamante ne ñu ngi ci biir ñu ne ci biir lan lañ mën a dimbalee police bi nga xamante ne ñu ngi foofu ba wan ni leen ñii kat ay defkat lañ ci dëkk bi la ñu dëkk te dañ leen a yoon dara war mën a ñu yoolal maanaam wane ñu ko man je dis pas Grand Yoff am na ay defkat Sénégal monde entier foo dugg am na def kat def defkat moom fii lañ ko fekk comprendre nga mais li ñu leen di wax rek mooy que ñu jéem leen sensibiliser ba ñu gën a delloo si waat seen xel xam ne du loolu mooy mooy euh, maanaam moo lay may li nga bëgg suba gisoo kenn kenn kenn ku sàcc bu réussir bu dul président amul li li si des yëpp xam nga ay ay détails la quoi parce que mënoo li li ngay sàcc ay téléphone ay greffage jàmbur amul njëriñ loolu munoo ci teral waajur munoo ci teral doom munoo ci teral papa li papa ak yaay ay doom li ngeen mën a terale mooy liggéey ñàkk njëriñu yow lan nga waaw mais poli police man bu ñu bu ñu bu euh, comment dirais bu ñu bu ñu loka bu ñu liggéeyee ak man mun nañ mun nañ mun nañ ci liggéey lu bëri parce que man jeunesse bi xam naa leen xam nañ ma en plus euh, bu fekkante ni sécurité la ñu bëgg aussi ñun mën nañ ci liggéey ak ñoom te dañ leen ci tàllal loxo pour ñu ñëw ñu ñu li ànd ak ñun liggéey ak parce que quoi qu'on puisse dire euh, na yoo xamante ni boo ko buggee arrêté foog nga dugg ci biir nit ñi am ñoo xam ne dañ leen di jël def leen ay agent secret ñu nekk ñu nekk seen biir di la wax lii ak lii ak lii parce que police mënul egg fépp yaa ngi comprendre te police aussi mënul donc ñi nga xamante ni ñu ngi ci biir société bi ñooñu ngay dem liggéeyal pour yow nga xam lan euh, lan moo nekk ci dëkk bi parce que boo xoolee ba xool lii bu mu amee ba léegi am di gisoo kenn kenn koo xamante ni développé na ci si les autorités qui sont à Grand Yoff te te loolu dafa ñaaw ko dafa ñaaw te imam bi liggéeyul loolu boo xoolee mbooloo mi fi nekk rek ñëpp di déplacé wu nga xam ni kii nii joxuñ ko cëram ba tey hmm. Hmm. maanaam autorité Grand Yoff su ma la déggee kon ñëwuñu fi sax jaale jaaraguñu non wax dëgg wax dëgg yàlla man gisaguma fi gisaguma si kenn wax dëgg yàlla Mm. même pas autorité grand fi sax autorité autorité képp kuy autorité Sénégal képp ku même Macky Sall sax daf fi waroon wàcc parce que kii imam la mm. waxuñu benn Zarko moo génn àdduna de bu doon Zarko la sax coow du jib garaawul quoi mais imam la imaam ki boo déggee imaam mooy kiy tudd njaboot gi mm-hmm. boo déggee imaam mooy ku làqu ki nga xamante ni ku lay jullee mm-hmm. boo déggee imaam mooy kiy jiite mm-hmm. kon donc kii kii dëy dëy comme ni ñu koy waxee dëy national la waroon doon ba pare di di koñ bi yëpp ñu fi mokkal alxuraan bokk na ci moo leen koy jàngal kon kooku nekkul nekkul n'importe qui moo dem quoi si nekk na nag lu ñu metti mais xam nga mhm. dañ koy sante yàlla xam nga comme que dañ koy jébal boromam tey mhm. ñu ñu ngi koy ñi di masawu famem bu baax a baax a baax a baax mhm. jaajëf Zarko kontaan ci yow ñu kontaan bu baax a baax di masawu l' ensemble zone 7B de Grand Yoff di leen wax ne xam nga euh, yàlla na ko yàlla xaaree aljana ak euh, bépp baay bu mu fa fekk ak euh, bépp njaboot bu mu fa fekk wasalaam